fa qul alhamdu lillah complexe Kër Maam Awlo lëkkaloo ak Daarul Qur'anul Karim tàmbali inscription année scolaire 2024 2025 fii ba le 2 octobre di fàttali nag mbokki parents d'élèves yi le nombre de places est limité fii si complexe Kër Maam Awlo Kamal am na fi programme classique tënku si enseignement général programme franco-arabe 50 sur 50 ni mu amee cycle élémentaire ba tey am na fi cycle secondaire troisième ba terminal mbooleem seri moo ngi fii bu dee ñi mokkal Alqur'anul Karim bëgg intégrer élémentaire bi si wàllub classique bi wala franco-arabe bi au lieu de six ans trois ans lañ koy def ba tey si wàllu programme jëm si ñi mokkal alquran dinañu am possibilité def majalis bu dëgër boole koog ñu leen di toppal seeni alquran bés bu yàlla sàkk ñu mën a tari ñaari xisib di koy amale si daarul quran bi à partir de seize heures ba dix-neuf heures waaye nag bu dee alxames ak ajuma ñu ngi ko jagleel wàllu mbindum cosaan si suba si ngoon si nag ñu dallu ah mbokk yi dellu si waat nag si résultat yu am solo yu complexe Kër Maam Awalo ak daarul wàllum CFE ak it entrée en sixième am nañu cent pour cent nekkit établissement bi jël première si wàllum département de Mbacké lii doon ay performance yu am solo li ko waral bokk na si encadrement bu baax bi pédagogie bu am solo bi discipline bi danoo jiital sàmmoo orma dëkk bi ak it ay teggin bu dee nag si wàllum daarul Qur'an bi ba tey si résultat yi fukk ak benn mokkal nañu alquran juróom-ñaari jigéen ñetti góor complexe bii nag mbokk yi li tax ngeen war ko taamu barab bi yaatu na taaru na respecté mboolem norme si wàllum jàng ak jàngale yi boole kook am sécurité yi am na infirmerie am cantine scolaire boole kook bibliothèque ak lépp luy commodité yi ba tey fii si établissement bi am na ay bus scolaire yu leen di transporté sa su nekk waaye nag ren ji mbokk yi danoo fas yéene amal ay filière si wàllub formation professionnelle ba tey tamit fas yéene démarré informatique bi bu dee si wàllub internat bi ngir ngeen mën ko intégré jàng majalis da ngay mokkal alquran ba tey tamit ñi mokkal alquran mën nañ doon ay externant di wàcc di ñibbi waaye nag fi la ñuy yendu ba 19 heures ah mbokk da ngeen bëggoon éducation bu baax si wàllu classique franco arabe ak i daarul quranul karim taamu leen complexe kër maam awolo woote leen gaaw si 33 978 90 90 77 404 99 03 78 469 48 40 wala si 77 414 79 56 complexe Kër Maam Awlo ca booba le président directeur général Serigne Makhtar Diène mi nga xamante ni pionnier la si wàllu jàng ak jàngale fii si Touba mooy ñaanal ku tedd ki Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér di leen ñaanal une très bonne année scolaire 2024 2025